dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara ma dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara yàgg la fi téléwér sànq ñëw nañ ba sànq mu demoon nañ sëñ bi siyaare ko léegi nii leer waaw ak ak na ba siyaar bay siyaar sëñ bi waa gis nañ ko gis nañ ko bis bu neex te lépp macha allah sant nañ ci bu baax a baax baax sëñ Saliou nee na mi sant bu baax jël la gërëm taxawaay si moom gis na teraanga yi nga ko defal lépp ñi bëgg dem rek jumaa jee ñu doon ubbi sa taxawaay ñu ñëpp defal na ko ak ni nga ko ci taxawoo defal ko ko te loolu xam na ne lislaam moo tax nga ko defal ak si yàllaa def suñu soñ boo tax nga nga di koy defal day ñaanal nga yàgg fi loolu te wér da mbokk goo da si am mbokkam di xaritam di léppam macha allah mu yàgg yoo xam ne boole goo xam yàgg na mbokk amee bi sëñ bi boolewaat leen lu yàgg-yàgg te lépp nga xam ko te sàmm baax a baax mii lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér di ñaanal suñu muntaxaa suñu borom woyofal yan bi gunge gi ngay gunge te ñu ñu murid yëpp ñoo xam ne jàppal nga ko bu baax baax a baax te mu seede ko ñun ñëpp ñu seede ko ñun ñoom ci sant bu baax a baax te xam ne loolu sunub sag la sa taxawaay fi sunub a baax Mbàkke yàgg fi te lu te wér ba li sa ko ko ni nga ko bëggee tan ànd koog yow di ñaan suñu li mu wax sëñ naa ne foo ko takk wees na ko sa taxawaay ci moom ak sa yëg ci moom ak sa taxawaay ci ci ñëpp rek sa taxawaay ci bi tamit teg si waa ndax yémale woo ko sëriñ Sall yëpp li commencé sëriñ Cheikh ba sëriñ Jili képp koo si gis rek lépp lu mu soxla rek yaa ngi ci taxaw ba su ñun ñi nga xam ne ñun ñooy seenu njaboot kenn ku nekk koo ci dégg soxlaam wala lu mën doon rek da nga ci taxaw na ni ko ni ko bu baax a baax ñaan nga yàlla yàlla nag suñu borom gën a dolli wëril la yokk saw fan ba lépp loo mën na ko gën a mën diwén ci barke Sëriñ Tuubaa waaw ànd ko sa mbokk yëpp macha allah isaari soxna moomi bu baax mati Mbàkke jërëjëf Mbàkke ci turu soxna moomi mii toog di soxna moomi Abdoulahi borom dër bi mi nga xam ne mooy magi soxna si di kilifaam te toog nii ginnaaw bi nu ko nuyoo siyaare ko siyaare soxna may mii toog ak soxna maskoor ak seen doom ju baax ji di sëñ Mourtala ak mboolem ñi ngeen àndal di leen sant di leen gërëm te yóbbante cant gërëm ngërëm ci Serigne Saliou Mbacké moom sëñ Sohibou di ko siyaare bu baax te di ko gërëm soxna si wax na ni nag cant gi ci sëñ Saal bala mu ko def da koy njëkkee soxna mam Anta ndax cant gi foofu lay daree jaar ci sëñ son yi bu door ak siwaate ci sëñ Saal mu ne ndax soxna mam Anta ba na boppam bàyyi koog njabootam gépp nee na kenn ku ne ci ñoom jàppewul soxna Baali mag waaye wuy jur la ko def barki démb bi ñuy siyaare sëñ Muntaxa mboolem daayira maam jaara yi soxna Baali yi bi toogee soxna Baali daf ma ne waxal ni man soxna Baali Muntaxa ak soxna Moomi Abdoulahi ak soxna maam Anta noo tëju ci mu nekk sosoon daayira bi ñun ñett àjjee jiñ ci njëkk a joxe daanaka xajul xajul xajul ci kalpe ñuy dem a dem a dem ba muy doon ay million yi ñuy dem a dem a dem ba liggéey bi ak si te boobaak tey njaboot soxna maam Anta gii ku ñëw ci liggéey bii. xam ni rek la seen na way jur wa defoon ànd ak soxna Baali ñu sos liggéey bi ñu ngi ci ndax barki démb nee naa soxna May mii ku ko fekk ci waañ wi ak ni muy doxalee buñ ne newul kii doomi sëñ sooy bu la doo ko xam ci pas-pas ci taxawaay ak ci liggéey ñoom ñëpp nag noonu la def wuuf si kanam soxna Baali jàppewuñ ko mag def ko muy seen ndey kon cant gi foofu lay tàmbale Serigne Sall nag soxna si nee na moom du ko sant waaye da koy ñaanal. nee na ndax rakkam la noo bokk sëñ bu waaye nee na sëñ Saal nag da koo bëgg da jàpp da koo taxawu da koy safoo te loolu nag képp ku xam sëñ Saal ne xam nga loolu ci moom ku xam soxna Baali xam nga digganteem ak sëñ Saal muy diggante boo xam ni bi nu bokkee sëñ Tuubaa bokk sëñ Sohibou ba noppi nag ak xaritoo da lal nee na jëf jii mu jëf nag nga xam ni duñ na daaw duñ na daaw géej duñ na daawaati géej at mu jot nii la koy jëfee. taxaw nii ci kanamam jébbal ko ko te xam na ni nag sëriñ sëriñ sooy bu benn la ne sox soxna jaara ñëpp ci am waaye cër bii mu ci am nag tax mu jëlaat cër bi delloo ko ko jàpp ni bu délégué soxna jaara ci kilifaam gi la ko war a jaarale loolu moo sabab lii kon soxna saa ngi koy sant mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal yàlla yokk ko yàlla sàmm ko yàlla aar ko lépp loo xam ne daal sëriñ baa ngi koy séddale nee na yàlla bu ko ci kenn ëppale lii doy na sëkk tawféex doy na sëkk teranga moo tax mu ne soxna moomi nañ génn ñu dem ñu nangu yi nga xam ni mooy at addiyee Serigne Sall ndax moom at bu jot ñii la koy defee jëme ko ci liggéey bi kon soxna saa koy sant di ko gërëm sant sëñ Mourtala mi it bu baax ci ci kàddu yu rafet yi nga xam ni mi ko doon yëkkati ndax nag Serigne Cheikh Say ku ne xam na ni ak taxawaayam keroog bi ñuy ubbi jumaay Poroxaan fii la taxaw ci buntu kër gi ñëw na soxna si fii laa yendu teraanga yi bari na sama xol sedd na sëñ Muntaxa am na ngërëmal soxna jaara waaye dama ne nag faw na sunu bët ñeent daal di ubbi oto bi ne ko duggal soxna baali dugg toog keroog ñun ñu fekkee loolu lépp xol bu set leen ci am ak mbégte kon moom it na ko fi yàlla yàggal ak njabootu sëñ sooy bu bi yëpp yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla defal leen tawfiya soxna saa leen di sant mi leen di gërëm lu ci dëng daal mbaa mu nañ xam ne ci man la waaye li mu yéene nag ne wax ko ci rakkam jii di Serigne Sall ak daayira bii nga xam ne ñoom la a soññ ñoom ngir ñu gën a takku ci ginnaaw sëñ Saal xam ni moom li sëriñ bi bëgg rek ci la lim leen di digal mooy ndigali sëñ Tuubaa yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat ma dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat am soxna jaara ki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara